man Ablaye Matar sa collègue Papa Alé Niang ba ñu def constitution 2016 fii la ñëw toog laaj ma ma ne ko man Ablaye Matar dama contre limitation des mandats d'un président de la République en Afrique ah bon man ak Jean-Paul Diaz ci responsable politique yi ma xam am carrière ñoo ko mas a opposé yaa ngi koy opposé dama ci opposé ndax du caaginu politique fa ma jaar a tax wax naa la fa ma jaar ci sama carrière ministère des finances ba fi ma toll amul benn projet boo mel ne chef d' état. bu mën a am pexe boo commencé benn projet initié ko tey pare ko en cinq ans à cause de procédure moo tax ma ne d' accord ma ci man mosuma d' accord ci loolu. mais fa wa wa may ah, ma ne ma ne est ce que France dafa am limitation mandat seen constitution. moo tax yéen journalistes yi bu élection yi génn il faut il faut ñu toog ñun ñëpp ñu waxtaan ko changé waat pour mu bañ am limitation de mandat loolu war na mun nekk non non non c'est ça vraiment moi je pense que ça doit être le consensus fort du Sénégal si nous voulons être un exemple en Afrique ku fi am deux mandats successifs bàyyil il ne faut pas toucher la constitution sur ce plan-là et ça incha allah man de Matar ku ko fi nar a en face